nuyu tous les sénégalais di nuyu sama mbokk manager yi euh, waaw lamb ji moom euh, en ñun ñu ngi koy préparé am na face à dimanche TFM waaye am na open press altine li gën a waral nag face à face bi bokk na ci one bet bi nga xam ne mooy sponsor euh, leader bi. andak ak Alip ñu wara appuyer le promoteur waye benen aspect bi moy comme dafa am intox ci lamb joju ñi nan Balla Balla gay dafa blessé ndig lay metti ñi di wax ni Boy ñang momit loxo bi day metti ñi di wax ni Gaston dafa febar xana bu ñu leen gisee dimanche ñom ñep ñu tok danañu xam ni kon ñaari secteurs yi amul benn problème bu ci am lu dul di xaar dimanche le premier ñu def fête bu mag fii ci arène nationale. waaw coow dafa bari Balla dafa blessé Boy Niang dafa blessé te mbër naa bu desee deux semaine wala tout bëre entraîne lu koy blessé. waaw loolu moo tax ma ni su ñu defee face bi dimanche nit ñëpp gis Balla Gaye nit ñëpp gis Boy Niang ñu waxante la waxante. xam nga nit ñi commencé woon nañu jëndo billet yi euh, fi ci EDK bu buntu bunt Pikine ak jollof ci kën bi nga xamni mom mo nekk nekk way ak euh, immeuble Scorpion bi ñu commencé do jar légui ñeneen ñew di yaq naan Balla kay dafa apa apa li mooy métti di wax ni boy ñang euh, loxo bi day met alors bu ñu ñëwee gis leen ñom ñaar ñepp ñu tok def face à face bu neex dina permettre nit ñi seen xel dal ñu xam ne ñu préparé dimanche incha allah lamb ju neex joo xam ne ci biir arène nationale lay doon. mais le premier ngeen di jàpp ngeen di jàkkaarloo kay na géejewaay gi. Sénégal yëpp nag booy ñaam mënut a daan waa lourd yi da daa bëre ñaari génn si war a bëre rek Balla Gaye kon nañ dem toog xaar rek lu amoon rek mooy amaat. waaw xam nga nit ñi am nañ ci droit waaye nag bés bu nekk ak li ci war a xew keroog bi mu bëreeg Sa Thiès dafa am ay journaliste yu ma waxoon ni ma combat bi ngeen jël ak rapidité bi nga xam ne moo nekk Sa ma posé leen benn question may leen Sa moo gën a gaaw wala booy Niang moo gën a gaaw waaye au finish xam nañu booy booy Niang moo gën a gaaw euh, lamb ju ñëwagul nag wax ci jaru ko mais xam naa ni daal Balla Gaye c'est un très grand lutteur ku mën a bëre la. waaye Boy Niang tam la diggante nag stratège ak mën a bëre bon combat bu neex moo fa war a juddoo loolu nag la amateur yëpp di xaar dimanche prochain incha allah ñu ñëw fii ñun lañuy wax rek mooy supporters yi ñëw en masse parce que one it wet dafa maye combat bi ci biti bitim réew ñoom am PPV am na ci. waaye na làmb ci fees d'abord del parce que mooy dëppe ñaari mbëri bu ñu paree ñeneen ñi nga xam ne mun ñëw seetaan ci stade bi dem seeni i kër seetaan ko mais ñi nga xam ne ñoo ñëw stade nañu nekk ay supporters bañ a nekk ay fans club di jëndalante ay boissons di euh, teralante ñuy naan seen i café bu lamb ci tase ku yàlla jox victoire nga xam ne yàlla jox la na victoire ñuy ñaan yàlla nag booy ñëw euh, gagné euh, avec brio. maanaam ci combat boo xam ni day am spectacle ñu bëre xeex au plus yàlla may Boy Niang victoire bu sedd guy incha allah. kon père maa ngi lay jaajëfal. jërëjëf moom bi nekk ay mbëri professionnel. yaa ngi bëre si mag. tey Balla Gaye tey combat bi la ma wax si arrangé. waaw Balla Gaye de li ko si combat bi rek mooy am ndam ndax dafa jógee ci Bombardier ay supporteurs am kontaanuñu malgré ni mu duyee stade ba fees. bëri na ci bëri bu rëy mais daf ko ñàkk muy combat revanche mu ñëw aussi bëree këm mu mujj a bëri laatal. Gris Bordeaux Gris Bordeaux mais ak manière bi mu ko daane mooy combat bu métti ci moom mu xeex ci xeexam jël ci ay coups yoo xam ni moo nekk sax kaawate muy combat bu métti ci moom nit ñi naan jeexal na ñi naan jeexalul mais man damay jàpp ni jeexalul lamb nag li ma koy wax toujours rek yaa dee o ya ba yaa dee a yaa dee o yaa dee ba du dëgg làmb athlète du toujours mu nekk à 100 pour cent mais Balla Gaye bi bëre ak Yékini Balla Gaye bi bëre ak Mohamed Ndao Tyson Balla Gaye bi bëre ak Feu Tyson Balla Gaye bi bëre ak Saloum Saloum bëre ak Bathie ndaanaan yooyu yëpp ak presque mën naa wax ni génération daf leen jeexal ba ñëw bëre ak mag ñi daan leen par rapport ak ñaari combat yi mu jugee moo tax moom fi mu toll tey ay supporteram duñ ko baal lu dul mu am victoire bu rëy ci bis loolu mooy tax mu delsi téyewaat géejewaay amaat yaakaar jëlaat roi bu kenn nag jeexal la parce que xale la moom booy ñaa seen magante mënta bari ndax mag ak la boo ñaa tey boo xoolee moom Sa Thiès duñ magante li ñu magante du bari kon mag ak la mag amu fa maanaam Sénégal dañuy gaaw a màggatal nit mais Balla gay de xale la kon nag moom li ko war ci bis bi mooy mu am ndam lu rëy pour mën a dollu confirmé wu aussi loolu moom mooy li nga xam moom la ko Sénégal yi di xaar moom la supporter am di xaar moom la ko waa lamb aussi di xaar ci mom Boy Niang jóge si ñaari combat yoo xamante amul si ndam mu a ak Balla Gaye moom nu muy war a bërisee moom Balla Gaye euh, Boy Niang numéro 2 li may wax toujours moo gën a métti la sax ñëw ndax li tax mu gën la dafa jógee ci Tapha Tine ñu day passé bac jàllul nga ñëw ci Lac de Guiers numéro 2 jàlloo kon yow say supporter mënuñu la baal sa diggante Balla 2 koy xaar mu am ndam su amee ndam confirmé wu bëri jéeg yeneen ténor yi ne ci kaw mais su amul ndam carrière am dafay sooxe ci wàllu ténor yi day dellu jiwaat bëri waat ci xale yi te loolu du ko arrangé ci làmb parce que ñoom ñi leen di sëkkatal am kattan macha allah te toll na ñoom ndax bul fàtte ni ku mel ne François Émile Gomis mi ngi seen kaw xale bu mel ne Reug Reug mi ngi seen kaw ku mel ne Sa Thiès mi seen kaw mel ne aussi euh, bari na tey mu ko doon lim ñoom góor a soog ak ñoom fils de Balla ak maanaam ñiy sëkkatal mag ñi dañuy ay poids lourd nit bu dee loo waxi mu suul bu yàggee mu ñëw sa kaw kon ñoom li leen li ko war ci combat bi moom euh, Boy Niang mooy mu am ndam parce que mooy wax naa ne match bi arrangé wu ko daw di jéggi saako du ko arrangé li ko arrangé mooy mu xeex ak Balla Gaye wane ni man xale laa Balla Gaye bi mu tolloo fii ak samay mag dafa bëreeg ñoom bëreeg Tyson bëreeg Balla Gaye de jëflanteeg ñoom daan leen kon man foofu laa toll dafa war a jëflanteeg moom daan ko. lamb nag dañu wax ni aussi euh, ku daw ku daan la ñuy wax mais jom ak fulla ak fayda lamb di nga boo xam ni même soo ci amee défaite Sénégal yëpp ñoo jóg tàcc loo xam ne yow yi ndaanaan ku lu fi dirin nga mais li bon ci làmb mooy di bëre stratégie di daw di dóor di daw ba làmb jeex ñu daan la loolu day yàq carrière mbër li baax ci mbër mooy bu arbitre soufflé nga def li nga war a def yàlla nag moo yor ndam. booy ñaa bu arbitre soufflé daa a taxaw wala war a xeex. booy ñaa bu arbitre soufflé ni may waxee toujours rek euh, mën na xeex man na attaqué man na bëre wax na ne daal ñaari mbër la yoo xam ni bàyyi ba Sénégal bàyyi xel li may wax bokk na ci mbër yi dàq bëri dañoo mën a bëri dañoo mën a xeex bu ñu xeexee mu neex bu ñuy xeexee bu ñu bëree mu neex mais nag aussi ku ci ne am na ci côté boo xam ne ci wàllu xeex bi yaa fa gën a fort sa morom ndax bu dee ci wàllu kora Balla Gaye numéro 2 gis naa ko muy kor mais kor bi Balla Gaye di kor a fort bi Boy Niang di kor bu dee kor à kor ci kaw Boy Niang dina ci am avantage tuuti mais korante bi avantage Balla Gaye numéro 2 jàppante bi. jàppante bi anase ñoom ñaar ñëpp te ci biir jàppante bi képp ku sa roc sa loxo di xeex sa morom dina la daan bala xalaat mu ñibbi. Mm. waaw dañoo a bëre. kon dañoo war a euh, combat bi dañoo war a ñëw jeexal ko ci xeex wala ñëw jeexal ko ci bëre. kenn mën naa door moromam mu kaawate mu buub ko doon ci suuf. Hmm. dàquma ko ci combat bi. kenn ki mën naa door moromam ba mu kaawate mu buub ko doon ci suuf. Hmm. dàquma ko ci te loolu mooy jëli bi gën a yomb ci ñoom ñaar ku ci door sa morom bu kaawate boo ko buubee dara du fa des. dàquma ci door mu daanu dàquma ci mboot dàquma ci caxabal lépp mi ngi ci biir bëre bi dàquma ci takk door ci suuf. ah Pape maa ngi lay jaajëfal <laughs> jërëjëf